ndax ñun ñi tam kenn ku ñëne sëñ bi la tek ci barab ngir nga du ko saytu ak di ko kon war nga xam li xew waye dajale af sal ay nit ne dañ fee tagat seen yaram difa dajale ay goor jeen lo rafetu wax nañ nak ne bayyi nañ ko bi ko waxe daw waye lo tam ñi ngi leen ci soññ ndax nit ñi di def bo yëkëti ndigal fa sa sama nañu bayyi waye bu yagge tuuti ñu delluwaat ca ak yeneen yu ñu dem yu bari lolu mat day bayyi xel ma ma xoddumat khidma